jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan seen site 28 pro am mbégte ànd ak yéen ba tey ci spécial tabaski mbokk yi ba tey ci nu ko faral di defee rek suñuy invité tey ñu ngi fii ci Touba Xayra ànd ak yéen ci beneen invité di Serigne Modou Mbacké Bara Dolly nekk ci convergence taxawu ndoonay mag ñi ba pare nekk responsable politique APR fii ci Touba moom mooy nekk sunu gan ci spécial tabaski dañ koy dalal rekk mu daal di nuyoog askan wi sëriñ bi ñu ngi lay dalal ci sunu site 28 pro. di am bu baax a baax ñëw fekk ko fii ci këram kon mbokk yi comme ni ma koy waxoon rek sunu gan tey di Serigne Modou Mbacké Bara Dolly moom mu euh, bokk ci convergence taxawu ndonoy mag yi di responsable APR fii ci Touba Xayra nekk conseil spécial auprès des HCCT sëñ bi Mbacké ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fal euh, bu baax di leen nuyu di nuyu mboolem ñi ñuy déglu. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne it ñu ngi seetaan 28 pro. Eh, di leen ñaanalit yàlla defal leen jàmm seen sit bi dem ba nekk ay rajo eh, di jël sun nuyoo bu tedd eh, di ko nuyu sëriñ Muntaxa Xaadim Rasul ñaanal ko mu yàgg fi lool ci wér waaye di ko ñaanal mboolem xalifa généraux bu ne ci réew mi ndax wax nga ko léegi nii convergence taxaw nanu noonay mag ñi ñun ñooy ñi ko jiite di ko taxawu mhm. ca mboolem kër diine yi bokk ci justement loolu laa bëggoon xam naa dinaa ñëw ci kanam Touba nga jullee waaw Touba yi laa jullee. ci gannaaw Serigne Mountakha Bachir Serigne Mountakha Khadim Rasoul. dégg nga discours bi mu def. waaw ci lu ñetti minutes. discours bi lu gàtt la. waaw moo yóbbu nit ci makaarimal axlaax maanaam lépp da koo tënk ci makaarimal axlaax. Mhm. wane ne suñuy jukk war nañ ko gën a rafetal. Euh, wane ne it euh, suñuy kàddu war nañ ko gën a ñoŋal. Mhm. Euh, wane it suñu jaamu yàlla war nañ ko mën a gën a mën a dox. Mhm. di ci jëf guddi ak bëccëg ndax looloo tax ñu binduñu ñu. looloo tax ñu indi ñu ci àdduna. kon jàpp na ne. Euh, sëriñ Mountakha Xaadimu Rasuul indiwaat na nit ñi ak fi situation fi àdduna bi toll. Mhm. jàpp na ne loolu mooy li nga xam ne mooy li ñu mën a soowee fii àdduna bi toll. ñu ñëwaat ci at mi ren jullit yëpp ci àdduna boole benn julli muy tabaski ñu mën cee jaaree nekkoo nekk maanaam bennoo bi gën a taxaw. gën a ratax suñu diggante waaye tamit ñaanandoo li nga xam ne moom moo fi xew mu jóge fi. waa xam nga loolu santaat yàlla la ndax euh, suñu borom ci boppam moo njëkk a digle. Eh, ñun jullit yi waxum ñu war a gën a nekk ko benn eh, wax na ko ci aay junni wax ne waxtasimu bi hablillahi jami'an mm-hmm. wala tafarraqu delluwaat na wax naa ne moom innamal mu'minuna bay fa ak bayna akhawaykum mm-hmm. kon foofu danga fi mën a jàngat ne yàlla moom lim ñu déggal ñun mooy rawatina ñun jullit ñu nekkoo benn mm-hmm. ñu nekkoo benn di ci dugg di ci dund di ko dund mooy li am solo kon tey eh, ay at yu am jullit yi mësuñoo bokk benn bis jullindoo ko tey jii ñu bokk benn bis buñ jullindoo sant suñ borom la tabaraka wa taala ñaan yàlla it loolu continuer ca loolu bu continuer njëriñu àdduna bi la njëriñu julli yi la ca yoon wi nga xam ne moom la suñ borom teg muy siraatal mustaqima lam ñu ci digal mooy ñu sax ci ànd nekk benn jàpp ci bu mu yàlla gi ci bañ a tàggatoo tàggatoo mu nekk tamit suñu diggante ñun fii nga xam ne ñoom ñooy ay taalibe danoo war a tamit maanaam gën a jox sëriñ bi li nga xam moom mooy cër ci bañ a xotti war ma di di di topp ndigal. xam nga ñun booloo googu day dikk ba ci ñun murid yi ndax ñun murid yi tey boo gisee tey ñu suñu doolee feeñ lool. Eh, la ko indi mooy unité boobu booloo boobu nekk benn. Mm-hmm. xam nga lenn lu ne rek boo xoolee da nga gis tegtal bi ci bennoo googu ak nekk bi benn. Mm-hmm. kon li nga xam ne moom la taalibe yi war a dund ci guddi yi ñu toll gën a wormal sëñ bi gën a gëm sëñ bi. gën a xam ne li ñu mën a jariñ ci sëñ bi lañ ko mën a jëlee ca mhm. loolu day doon loo xam ne lu am solo la ci fii ci tuubaa jàpp naa ne ku fi war a nekk ku ne dafa yeewoo war ngaa xool foofu mhm. war ngaa gis am gis-gis boobu ci sëñ Muntaxa Xaadimu Rasuul mhm. képp ko xool jëmmam ji rek jëmmam jooju dana la war a mën a delloo ci yàlla kon gëm nañ ne ah ci suñu gis-gis eh, xut bu bi jàll mm-hmm. ak la ci am ak la sëñ bi joxe ndigal mm-hmm. jàpp nañ ne murid yi danu ko gis danu ko def mm-hmm. ak fi situation fi réew mi toll laay wax tegaat ci encore kon fi situation fi réew mi toll bu sëñ bi joxe ñëw fu mel noon rek foofee fa la mbir mi nekk ci gëm naa ne taalib yi danañ mën a ubbiwaat seen bët ci li nga xam ne mooy gënaat jox gëdd dëkk bi gën a joxaat ndigal li nga xam ne mooy baatu ndigal ci murid yi am ko ñu gën koo fulaal gën koo fay daal mm. xam ne mooy suñu njëriñ kon ñun ñëpp ñun àndandoo gën koo ñaanal ñu naal yi nga xam ne sumb na ko suñu borom may ko fan nu gudd ak wér ba mu àggale ko ñu yàgg ko fegge moom euh, dañuy daal di yoox ci li nga xam ne moom moo soxal dëkk bi mm-hmm. euh, message bi jàll na dëkk bi war na noo taxaw mais contexte bi ñu génn muy mbas mi mm-hmm. sëñ bi dégguñu la ci benn yoon dégg nga yëngatu ci lu waral loolu. ah waaw. dama yaakaar gisuñu ko. de yaakaar ne information yi da ngeen a suivre. Hmm. Euh, bu ngeen suivee yaakaar naa ne li nga xam ne mooy information yi euh, boo seet seetloo bokk naa ci njëkk a taxaw. Hmm. Euh, ci dëkk bi def ay jéego yoo xam ne nii. dem ci biir gaaraas yi maanaam oto Mbàkke Tuubaa yi dem ci sarit yi yëkkati samay ndimbal ah, joxe ko wañ ko man ci sama jëmi di jëmi boppam ah, dem ci li nga xam ne mooy sensibiliser nit ñi ba ba ci sous ci boo duggee ci YouTube bi da nga gis lépp yaakaar na ne sëñ Modou bokk na ci njëkk def ay jéegu ci dëkk bi di Tuubaa pour xool nan la ñuy sensibiliser nit ñi surtout milieu yi nga xam ne sëñ Modou doon na fa dem mel ne gaaraas yi lu mel ne gaaraas kalandoo yi lu mel ne sarit yi nga xam ne nit ñi dañ ciy dugg yooyu yëpp sëñ Modou na ko tourné ci dëkk bi mën na wax léegi ci début bi it ñin fee jot a mboolem lu ñuy ndekkee sañ Modou dem na ci ay form lijjanti ko ba nga xam ne ngataw yan yi ndekkee sax waxuma la ko mm-hmm. waxuma yeneen yeeg yooyu waaye sëñ Modou euh, bokk na ci ñi ko njëkk joxe ci ay doon ci dëkk bi macha waaw kon yaakaar nañ ne mm-hmm. euh, côté boobu moom euh, dama yaakaar ne xëy na dafa des tuuti fa bàyyee yaakaar naa boo xool YouTube bi da nga gis jéego sëñ ci yoo xam ne ñu bari defuñu ko sax ndax sama tànk tànk la. ci biir dëkk mais am na ak daara ak daara ak alxuraan am na kon changement par rapport ak euh, ba ngeen ko tàmbalee léegi nit ñi dégg nan li nga xam ne moom ngeen doon véhiculer comme message de sensibilisation rawatina jamono tey ji nii. waaw dégg nañ ko ndax euh, xam nga tamati tubaa dafa doon dëkk boo xam ne euh, mën nañu wax ne toujours dañ koy répété di ko répété c'est population c'est la deuxième euh, capitale du Sénégal mm-hmm. dëkk bu mel noonu du dëkk boo xam ne sax ni ma la ko mën a waxee ci yoon fii ñu toll ay ay mairie mairie la waroon am fii ñu toll xëy na baatu spécial bi tëkkoo ndigalu sëñ bi mm-hmm. waaye ni dëkk yi di xaajoo di am ay maire yu bari comme Dakar wala feneen Touba egg na foofu toll na foofu kon gëm naa ne dafay naqari doon loo xam ne nii tamit ñun responsable yi euh, ci benn benn yooyu da ciy néew doole lool ci wàllu liggéey bi. Mm-hmm. waaye nag teewut lan ca man daal def nañ ko ci nit ñi tamit ñu ngi daw kéemtalaay kàttan. Mm-hmm. Euh, mel na ni dégg na message boobu xam na ne feebar bi lu am la ñi ngi koy daw guddi ak bëccëg ñi ngi moytandiku ñi ngi fexe ba sens di sensibiliser seen bopp. Mm-hmm. te gëm naa ne euh, toujours damay wax ne yàlla ñu yàlla may yër ci dimbali ci yërmaaneem ba loolu mën a jeex ci jàmm. d'accord wax nga ko sànq muy Touba ville la. Euh, wax nga tamit euh, ay maire maire war na ko mën a parce que fi dépassé na ko ñaari euh, contexte wala ñaari situation yooyu noonu tey fii ñu toll nii sa xel kon jëm na ci maanaam wàllu mairie bi. Mhm. ba nga war a bokk ci ñu koy jiite. ah waaw mais xam nga loolu moom kenn ku ne boo nekkee ab. dëkk Touba di ab sénégalais euh, yàlla defit ngay leader d'opinion yàlla defit nga bokk ci sëriñ bi yàlla defit ngay yëngatu ci politique xam lan mooy développer ab dëkk hmm. xam lan mooy loo xam ne luy doxal ab dëkk la ah ci dëgg-dëgg Ah, war ngaa mën a taxaw tamati war a xam ne dëkk bii li koy jëriñit war nga am ay idéem ak i xalaatam mhm. kon kay sëñ Modou Bara Dolly it ku ku dénkoon maire yaakaar naa dana def ba def lu ko lu ko ci raw mais comme que dëkk bi day spécial mhm. kii it ci ndigalu sëriñ bi lay tënkee mhm. lépp it mi ngi aju ci sëriñ bi waaye nag li ma gëm ba gëm ko ngir xam ne luy doxal dëkk bi bokk na ca sa ci samay xalaat ne xam ne un jour wendara dëkk bi dana xaajale ko ay maire yu bari parce que loolu mooy li koy doxal ca loolu mooy li nga xam ne mooy saytu dëkk bi ba nga xam ne ci wàllu gu mën na di doon euh, dëkk bi dana mën a avancer jëm ci kanam ndax bu boobaa kenn ku ne fa nga féete wala gox ba nga féete nekk fa maire da nga jéem a fas yéene liggéey loo xam ne ni ci dëkk bi euh, sa morom du doo bëgg mu fu mu amee concurrent rek mm-hmm. euh, ci biir lu mel noonu dana continuer di dañ gën a yokk développement waaw mais parce que ba tudd nga ba ne mairie est que du maanaam dafa jëm ni dana indi problème mu suuf parce que Touba dëkk la boo xam ne day màgg mm-hmm. di gën a yaatu population bi di gën a yokk wax nga ko war na dana dem ay maire maire mais problème suuf dana am kon de wala problème xëccoo. Euh, xam nga naka jekk li fekk nit ñi ñi ngi ànd ak àdduna di dund. suuf di am nit ñi di dund. faaw problème suuf di am. ki fépp nag partout dans le monde. Hmm. kon problème suuf moom mënut a ñàkk di bañ am. waaye nag li am solo mooy suuf si dafa am ko ko moom muy dafa nekk titre foncier Cheikh Ahmadou Bamba ci turam ci la nekk. Hmm. kon gëm na ne lépp lu mënoon a dem ba ay maire am parce que boo xaay xoolee quartier yi fi ne fu ci nekk rek. maanaam mbokk fa ne mhm. jiite quartier boobu di kilifa quartier boobu mhm. noonu mu doonee ay mbokk nekk ci quartier doon kilifa euh, quartier ga noonu la waree mën a ay maire ñu doon kilifa euh, euh, population ba fanee ci wàllu commune kon gëm naa ne noonu fi xalifa yi di amee ki ay ay ay quartier seen quartier bopp sëriñ si dafa am seen quartier bopp ba pare di ko téyel seen bopp ci téewut bu sëriñ bi joxee ndigal ñoom ñëpp ñoo koy ànd benn baat bi benn la ëllëgi si bu fi amee ay maire it même chose yaakaar naa mooy am problème mu suuf moom gëm naa ne ci Touba mën naa bañ a posé yi muy posé du ñàkk muy posé ay benn benn mais toujours yi bu demee ba ci biir rek maslaa lay doon ak lijjanti ndax titre foncier kenn du ko fi am kenn ko fi am muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te maanaam kon ku fiy dugg si daal war nga xam ne maanaam même loo dagg-dagg sa kër ak nu mu tollu dimanche bu mu toll jàpp ne suba mën na la fay jëlee waaw xam nga spécial spécial nag dëkk bu fekkee ne borom da ko def titre foncier mhm. téel ko loxol boppam euh, la ko indi ca jamono ya nga xam ne sëñ bi ñaan nañ ko ba ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Fallou ba ci sëñ dem ba ci barki démb sëñ Saliou euh, da nga daal di jàngat ne euh, suuf si nga xam ne mooy Touba mhm. dafa nekk ci ay loxo ci loxo Cheikh Ahmadou Bamba lay nekk ndax tey bu fekkee defuñu ko noonu ah, demeewul nu mel noonu ëllëgi si biir ndigal yi ñu fi mën di def ci dëkk bi ak yi fi war a mën a doxal ci dëkk bi bu boobaa nit ñi mën nañ koo jalgati ca bu boobaa it ah, dañ naan ville la moog dëkk yëpp a yam mais bi mu nekkee spécial nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi ci lay ci lay dox loolu mën na noo wax ne day daal yi tënku ci ne eh, maanaam kenn du jalgati li nga xam ne mooy sart yéen fi ma eh, tënk hmm. kon loolu jàpp naa ne mbir la yoo xam ne nii tamit ala kule alin noonu la tubaa di ànd di dund ak moom di dund ak moom. tey ci li nga dund faaw. bi. waaw xool nga conseil municipal bi nekkuñu ci ñaan nan yàlla yii di ñëw euh, ñu nekk ci ndax. Euh, xam nga jiite moom lu ci ne mën naa am ndax ki ko yore tey ba mu koy yore mbir mu ko bett la. xam nga kon kon loolu moom duñ ci wax gun ci loxo suñu borom la yore ndax Abdou Lahad Ka suñ kóllëre la mais ba mu ko yor boobu yaakaar naa magasin kanka yëre la yoroon. xëy-xëy ñu dénk ko dëkk bi kon tubaa dafa am nu muy doxee ci ndigal lay doxee ci gëm naa nit la may wax waxtu ne mission la boo xam ne ah, sëriñ bi tamit moo la koy dénk ndax euh, ni dëkk bi nekkee spécial ci ñun mu baaxoo nañ képp ku nekk sëñ Touba yaay sëriñ Touba kon jàpp na ne ëllëgi si bu sëñ tubaa Touba dogalee man ma war a jiite commune tubaa war koo liggéeyal bu ko dessiné ci sama ci sama yoon moo nga xam ne lu ma war a dund la ci kanam it bu boobaa it sëñ bi eh, mën na noo wax ne lu sëñ bi tànn la lu sëñ bi bëgg la kon munuma génne sama bopp ci loolu lu dul gëm ne daal ñi ngi Tuubaa lépp lu fi nit di war a nekk wala lépp lu fi nit war a eh, dox pour mu développer ko am nañ xalaat bi am na idée bi am nañ yéene yi ca génnewuñu ci suñu bopp ne ëllëg war nañ ko mën a nekk incha allah li ci kanam kon nan yàlla yàlla fekke ko te ko eh, Euh, dafay daal di ñëw ci jafe-jafe yi nga xam ne moom moo fi nekk ren ci euh, dëkk bi mun na nañu wax wàllu assainissement euh, bërki démb daal coowul ONAS jug na fii dégg ngeen ko yéen ban solution ngeen ci am. waaw wàllu assainissement bi mooy li ma continuer di wax rek man toujours bu wax jege am côté bu wax am beneen côté bu wax man en tant que li ma représenté mooy damay gëstu ñaari côté yëpp. Euh, ak ni tabaski jote jote euh, euh, jub jub si woon mayuma ma dem toog sëñ Bass waxtaan ci moom ndax dégg naa ay ay kàddu yu jógee ci moom mayuma it ma dem Dakar toog ak directeur bi waxtaan ak moom ba tax na mënu ma cee exprimer lu bari mais li ëpp solo rek mooy am na lu fi président jot a def ci assainissement bi loolu leer na ñëpp waaye nag am na yit loo xam ne des na loo xam ne war nañ koo liggéey encore continuer ci wàllu assainissement bi ba nga xam ne euh, dëkk bi ndox mi dana mën a déplacé wu loolu nag yaakaar naa ne tàmbale amoon na kon li fi des mooy suwi ko liggéey continuer ba nga xam ne euh, dëkk bi ci wàllu ndox ak wàllu assainissement day dëkk bi fi ne foo jaar fi ne ndox maa ngi taade waaw mais waxuñu nag nga nekk fii di defar affaire président de conseil spécial président nga xam nga defaral président am na waaye defaral Touba mooy li jiitu ndax nag ci ci Touba gi leen dëkk ca buñ génnee adduna Touba la ni ñu denc kon lu mën a am Touba ñu ko mën a gënal waaye nit ki bu defee dara da naan def na dara man li ma gëm nit ki bu defee dara lu mu tuuti da naan def na dara waaye nag soxlawaat nañ mu dolli kon li ma gëm rek mooy def dara amoon na li am solo mooy ñu jëm koo dolli xoolaat parce que xam am na lu tubaa gën a yelloo ndax population bi fi ne ak ni Touba yaatoo kon li ma gëm ba gëm ko rek euh, mooy que ne am na lu jot am waaye nañ ko dolli liggéeyaat ci ba nga xam ne mbedd yu bëree bëri wàllum ndox mi dana wàññi ko. par exemple axe principal bi mooy deux voies yi. Mhm. sëñ bi ñaata at ni ndox maa ngi fay taa. waaw loolu lépp ci fotu kan la. xam nga am na ci loo xam ne euh, du du caagi ne lépp nag la état di def. Mhm. am na loo xam ne maire maire war na cee jouer cee it euh, du lépp it la def am na loo xam ne état war na cee mën a jouer euh, dugg diggante boobu jëm naa ni it mbir la moo xam ne nii dama di liggéey bu rëy la laaj. waaye nag euh, gëm naa ne li fi jof def ay corniche nekk di liggéey ay corniche jàpp naa ne xajut ci defar loolu xajut ci defar lii waaw kon euh, li ma gëm bëggam ko président moom mi ngi def li muy def waaye it li ma bàyyi xel it mooy maire bi ci jëmmi boppam it war na mën góor góorgóorlu ci wàllu liggéey bi ah parce que it boo seetloo foofu la koy defar sax la koy defar la koy defar mën na la wax ne moom entrepreneur la xam na man xam naa ndax dama yëngatu ci lu mel noonu li li mën a def ay ay ay camion biton maanaam man ko couler mën a bàyyi dégagement boo xam ne ndox dana ci dem yaakaar naa bu génne woon tuuti ci bit sa bi war ko mën a defar loolu loolu moom yaakaar naa ne lu yomb la ndax diggante boobu kus néew mètre yooyu ak kus néew am na budget boo xam ne nii suñ ko génne woon lum tuuti tuuti ci wàllu xeer ak feer ba koy liggéey ak nit ñi ca murid yi boo leen wooyee ñoom ñëpp ñoo ci sabat pour def ko yaakaar naa ne sax war naa mën a bëri doon loo xam ne état lañ ciy xaar ñu ñëw ci wàllu ñu ñëw ci wàllu sécurité fii ci Touba euh, ban jàngat nga ci am par rapport li fi xew fan yi ak li koy dégg wàllu braquage euh, wàllu agression waaw xam nga loolu mi ngi am ci dëkk bi yaakaar naa police yi ñu ngi yokk ab camp mi ngi fii nekku fi woon ca gëm naa ni it balay yàgg wàllu gendarmerie dina ëpp ndax li may wax rek euh, Touba nekkutul village donte mën na wax ci ay kayit wala nangam wala commune wala nangam Touba mën na wax ne capital la ah capitale nag bu fekkee ne dem na ba toll noonu dafay laaj maanaam sécurité bi ñu gën ko yokk ñu ngi ciy jëf ay jëf ndax police yi am ak ci ci dëkk bi amu fi woon. ce gox yu ne ñu ngi ministre de l'intérieur mi ngi ciy liggéey euh, di yokk wàllu euh, police yi côté bu ne kon gëm nañ ne euh, balay dem ci kanam mën na wax ne quartier bu ne la ma la waxoon ci maire yi rek quartier bu ne war naa mën a am police boppam ni ko yeneen dëkk amee ca gëm naa nit ñi ngi ci yoon woowu ñi ngi ci xalaat ñi ngi ci liggéey tàmbalee benn benn ndax tubaab moo ko laaj ci kanam tuuti gëm naa ne it wàllu sécurité bi bu police yi bëree euh, gendarmerie yi bëri ci dëkk bi lu ci bëri mën naa wàññi ko ca loolu it gëm nañ ko ci dana am ci kanam incha allah. ñuy ñëw ci maanaam tamit wàllu jikko yi xastante bi saagante yi bëri na fi euh, ñooñu noonu est-ce que war na noo mën a doon ay référence ak tamit lan lan leen war a orienté ba ñu mën a jóge ci li ñu mel. waaw xam nga nit ki euh, li feeg yaa ngi saaga rek wala di yëkkati ay saaga di ko saaga nit rek jàppal ne. warumaaloo sa waajur wi la jur parce que saaga ya ngay saaga jëmaat ci waajuru jàmbur képp koo xam ne warmaal nga sa waajur doo sa doo yëkkati ay saaga di ko jëmale ci waajuru keneen kon gëm na ne it euh, maanaam yu mel noonu ay jukka yoo xam ne ak i wax la yoo yoo xam ne dafa war a jeex parce que fii Sénégal toll ak fi nga xam ne tamit moom la yoonu murit mel ku koy wuyoo ku ne dafa am yeneen melakaan yoo xam ne moom nga war a yor yu heure bu ne ñu dégg la nga yëkkati sa kàddu di wax loo xam ne nii euh, maanaam ku ku ko dégg mu doon loo xam ne euh, maanaam da nga naan kii diw la as bi nga yore wala bu du dara dëkk bi nga dëkk lu mel noonu ku ne war na koo daw war na koo mën a jomm mais li ëpp solo ci ëpp solo rek euh, di ko xalaat di ko bàyyi xel mooy yooyu day continuer des mais li ëpp solo ci ëpp solo mooy ci jamono yi ñu toll. nit ñi war na nañoo xanteew leneen lu di waxante lu bon ak di defante lu bon ak ku wax nga yooyu parce que yooyu ku ne ko man ñun ñii di wax ak yow tey bu fekkoon ne doon suñu statut sëriñ mën nga ko def ku ne waaye nag yàlla dafa am nu mu rëddee àdduna rëdd ko nit mu war ko man man di ko doxee doxee lépp nag loo xam ne ni nit rëdd na ko jaaru ca daanaka boo ko génne moog bàyyi ma yee di dox ñooyam ñu bari ñoo bàyyi ma yee di dox ñooyam nit ñi nag Sénégal bu gisee nit mu sol mbubb ah wala mu gis mu yor oto wala ñu gis mu yor ndomb ak tànk danañ jàpp ne nit la waaye la sëñ Abdoulaye waxoon rek xaw mu naasu xaw mu moo naasu moom képp ku boppam jëm kaw nit la waaye xaw mu ay jëfi nit ki tey ak jëfi nit itam bokk na te mu toll loolu mooy nit nit nit ñi dañ koy wax naan nit ay nit nit mais ñu bari duñ ay nit ay naasu lan ah naasu jooju nag moom lu ne ma ngi ci biir. macha allah euh, sëñ bi daal ñëw ci li nga xam moom mooy ndonay mag ñi yi ngeen di taxaw mag yi wax nañ ko magi murit magi tijaan magi xaadar magi laareen magu islaam yi. mais comme waaw comme lan la. mag boo ko déggee muy danoo xool. ñun ñi nga xam ne ñu ngi soqi ko ci bànqaas yi nga xam ne mooy ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ne maam El Hadj Malick euh, ku mel ne maam Limaamu ku mel ne maam euh, Cheikhul Islam euh, ku mel ne maam bu Kunta ah et cetera ku mel ne Cheikh Oumar yu taal ñu gis ne mag ñooñu magi Sénégal yi bu ñu tuddee mag du mag yëpp. am na ci mag ñoo xam ni ah, waaw ma yooyu am na sonu maam yi caddu yi kon loolu taxuñoo jëkk mag ñi nga xam ne dañ doon sàmm lislaam bi taxawal fi lislaam bi jàkkaarloo woon ak nasaraan yi ci euh, fas yéene di euh, li nga xam ne mooy diine lislaam tasaaro Sénégal ci ñoom ñëpp boo xoolee ñoo bokk menn maam ci ñoom ñëpp boo xoolee mënunoo bokk benn kër mënunoo bekk menn penc mais dana tasaaroon ci ci Sénégal kenn ku ne di taxawal ay seex ñi di taxawal ay muxaadam ñu bëgg lislaam ji tasaaroo ñoo ñu leen wax ne am na ñoo xam ne nii ci réew mi dañuy xëy jàng ñëw cinq ans ci néew réewi yi bu ñëwee li ñu njëkk def mooy di ngeen mag ñooñu ak yëkkati ay kaddu ci da ngeen ko jis ci àdduna bi mm. fenn fu ne nit ka fa yëkkati kaddu jëmale ko ci mag ñooñu ca gëm na ne mag ñooñu ñooy suñuy kiiraay ndax réew moo gis mu ne rek am nay mag boo demee France sax am nay mag yoo xam ni dañ leen di respecté sàmm leen boo demee Amérique am nay mag ah ay xoma nan Washington nan nangam nangam yooyu ña nga war maxle seen mag du digg ñu yëkkati ay saaga dem def ko léegi nag yow mi nga xam ne da nga am mag mu mel ni mag yooyu ma tudd ah ngay am lislaami Sénégal gi ñu takk ci sa ndey ah wëññiku yo ngent li ci nga wëññiku màggee fi génn fi dem ca naar ya ñu rëddal la leneen nga ñëw fi di dée ngeen mag ñooñu eh, ci ñaar yooyu sax am ay mag kon jàpp na ne fo loolu leen jëg pour xeex ko ba nga xam ne waaye it jëgit pour xeex li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def bis bu set nga gis ko ci euh, euh, internet bi wala yeneen nga xam ne dañuy fa yéene am euh, Maodo fee wala am xaadim fale jëg ne man xaadim laa tudd wax lu ñaaw ci suñ mbokki tijaan yi nga gis am Maodo jëg fale ne man Maodo laa tudd wax lu ñaaw ci mbokki murid yi ca loolu day mbir yoo xam ne suñ ko toppee mën naa jur lu baree baree bëri ëllëg bu loolu amee ñu xool la ca gannaaw la ca gannaaw hmm. ndax am na ñoo xam ne di tey boo xoolee Euh, lii ñu yox ay terrorisme wala yu mel noonu ay nit ngi ci di wooyu Moustapha sax nekk ci ëpp dëkk wala neneen ca fekk ni du ñu jullit hmm. ca tey bu defee ay musiba li ñu njëkk wax rek bu buñ xoolee tur tur wu nekk jullit ñu ne ah, ñu attan nangam nangam yu mel noonu ci tey ci tey kon am na ñuy wuyoo murit wala ñu wuyoo leneen ñu njëkkatee saaga ñooñu ci am na ci internet bi ñoo xam ne sax tur yéen wuyoo sax hmm. doo doonuñu ko hmm. bu ñu génnee wax ñu ne ah yooyu yëpp nag dañ ci liggéey liggéeyin woo xam ne faire ci attention nit ñi hmm. ba nga xam ne bu ñu gisee ku kii rek du ne tijaan bi moo wax lay murit bi hmm. tax àdduna jëkk di kii wala ñu ne murit bi moo wax lay tijaan bi hmm. yooyu yëpp nag convergence bi di cee nekk di liggéey di bennoo ak di fexe ba xeex ci ñaari anam façon yu mel noonu d'accord donc léegi ñoon bu ngeen leen gisee ñu def ñaawteef dafa am nu ngeen leen di corriger wala da ngeen leen yóbbu fenn ci yoon par exemple wala nan ngeen i nan ngeen i daal par rapport ak loolu xam nga am na ku ñuy wax Ousmane Ba nekkoon Gabon mhm. Ousmane Gëba bi nga xamee ne mbir moomu am na. Mhm. danoo fexe ba lëkkatuloo ak ñoo xam ne nii suñuy représentant yu nekk euh, Gabon. am na ci kenn ku ma mën a tudd koo xam ne ñu ngi doon ci liggéey ak moom mooy suñu représentant bi nekk Gabon euh, Makumba Jawara ah, yor fa benn ONC kooku la lëkkatul ak ñeneen ñoo xam ne nii tamit ci daayira la nekkoon. ak keneen ku ñu wax Baye Fall ñu liggéey ci liggéey boo xam ne nii bu am solo la boo xam ne nii danoo fexe bu usman ba moom ca Gabon ñu teg ko loxo ñu ko loxo fas yéene yooye mu doon def ak yooyu mu doon wax yëpp ñu jéem ko téye jot cee jëflante ak moom ci biir jëflante bi sax ñun liggéey nañ ci ak ministre de l'intérieur defoon lu tout pour ñu reféle ko indi ko Sénégal ñu mën koo siisee ba nga xam ne ëllëgi si biir fu nit ab Sénégal nekk bitim réew it yoon li nga xam ne ay ay jën la yoo xam ne moo tey Sénégal nga nekk ci di ko di ko gor guddi ak bëccëg loolu ñu ngi ci doon liggéey ci liggéey boobu mi ngi continuer ndax ñeneen ngi nekk Italie ñeneen ngi nekk xuma Maroc ak yeneen i nit yoo xam ne nii tamati ñu ngi ci réew mi di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci kii yu yooyu nan nga jàngatee ñi ne dañoo war a maanaam changer eh, li nga xam ne moom moo fi nekko statut yi fi nekkoon tuddee ko ay nasaraan te sunu mag yi nekk fii ñaar wala ñett rek nga ci dégg benn yoon wala ay ale noonu yéen est que bokkul tamit ci li ngeen xalaat pour ndono yooyu noonu mën a feeñ ci loolu ah, loolu bokk na ci li ñuy xalaat ndax tey ci tey ñu jël benn statut tuddee ko magum tubaab moo xam ne da jàpp sunu maam yi di di di sonal ah mais sëñ bi euh, euh, euh, yaakaar naa ne ci yoon doo doo dugg sax euh, euh, doo dugg su France fekk fa statut Hitler du am mukk ci àdduna mais kon loolu boo jàngatee li ngay jàngat nga xool li ngay xool xool ko mag ñooñu nga xam ne ay ay mag magi tubaab lan woon ñëw ci réew mi di jël koom-koomu réew mi di yóbbu di not mag yi ni fi ne di leen sonal mais ndax mérito na ñun ñu nekk doomi mag ñooñu wëññi ko di jàkkaarloog euh, am kaarloo wala am nangam ci dëkk bi ñu koy xool ca mu daan sonal ma loolu sax xel mënatu ko nangu fi adduna toll fi nga xam ne fi la ma maanaam mentalité nit ñi toll loolu da koo laajutut man jàpp naa ne yu yooyu ngay gis aw saagale ci ñun sénégalais yi kon non nag sëñ bi parce que yéen ñun ñu ngi ñuy may ay Bamba Dey ay États-Unis ah. ay kër Serigne Touba feneen ak feneen xam nga xam nga xam nga weccoo Serigne Bamba Xaadimu Rasul musuta xeex nit ku weex hmm. moom mission dafa jëmoon ci maanaam adduna bépp la woon ndax bi muy ñaan ci waaxu Moussa Siri lim njëkk a wax bi mu wàccee tànkam yàlla waxut na nga yërëm sénégalais yi wala na nga yërëm julit bi irham jàmmeel waraa la wax kon tey ki nit koo xam ne nii mën na noo wax ne sa ci yàlla la jëm sa ci unité euh, euh, personne humaine doomi aadama yi ci la jëm kooku tey am ay jullit yu nekk foofu wala ay comité murid yu nekk foofu kooku ñu may la loo xam ne nii da koy kii ngir sa gëm-gëm der bu ñuul da doon xeex maam yi di leen not da doon jël ressource bi di yóbbu kon weccoo boobu bokkut ak li nga xam ne mooy li taxaw parce que message boo xam ne nii Cheikh Amadou Bamba da ko doon jàllale kon tey bu demee ba la la la kii waxoon Cheikh Mouhamadou Mourtala Khadim Rasoul euh, nii bis ba mu ko recevoir la mu ko njëkk a wax yëkkati xasaayit yéen ko indil ay sindi di ko xool bi mu xoolee dane ko kii ba muy waxal waxutoon ak Sénégal yëpp àdduna bépp la taxoon ay mudu sax war noo am fii ci Irak kon loolu boo bokkut ak ay karlook ay mark mark nangam ak mark suñu borom fayal euh, di Serigne Touba Khadim Rasoul euh, sëñ bi dañuy daal di ñëw seen ëllëgub euh, régime tey maanaam benn mandat moo leen dese muy bii nii yéen la ko ngeen fas yéene bu Macky demee da ngeen di bàyyi politique ah mais ku ne la Macky day dem ku ne lay ah. benn mandat ñu dese ah. déet bi ñu néew ñu Macky day dem non non non néew ñu Macky day dem néew ñu benn mandat ju dese déedéet ah mais lan la lan la li nga xam ne moo doon constitution bi lan la wax ah, ñaari mandat ñaari mandat mais est-ce que mandat bi ñu doon tëralee def euh, kii bi pour tëral ko ndax mandat boobu constitution bi wax na ne ci la bokk askan wi ñu seetaan daal àtte nañ ñu askan wi ñuy seetaan damay laaj xam nga da mbir la moo xam ne egguñ ci kon yaa kon yaa kii bokk xalaat yaa yaa Omar Sarr yéen man sama gis-gis ak sama xalaat egguñ ci waaye loi dafa sew lool gudd lool mbir mu nekk xam nga nit ñi dañuy coow rek waaye Macky Sall moo fi dàq politique. mais Macky waxoon na bu leen ci waxati. ma ne ma ne xoolal buñ ci waxati. non ma ne. waaw mais xoolal xoolal mo xoolal moom mën na ko wax. waaye si moom ku ko wax ne buñ ci waxati ku mel ne sëñ Modou Bara Dolly moom lim gëm lay wax li ma gëm mooy loolu mbir la moo xam ne. wàllu kii bi moo ko yore du président moo ko yore du keneen moo ko yore la nga xam ne nag moom la ci nam mu ne mandat bii ñu doon mu nekkoon di ko doxal ndax moom ci jëmmi boppam ca la bokk wala bokku ci ñi ngi déglu ba ëllëgi si biir bu boo xamee ne verdict boobu génn na ñu soog a mën a wax waaye pour le moment daal li am solo ba am solo mooy li président wax ñi ngi liggéey ci nu Sénégal doxe ñi ngi liggéey ci situation mbas bi am nan lañ war a génnee ci crise boobu parce que ay réew parce que damay faral di wax ne lii sorewut ak daanaka guerre mondiale guerre mondiale euh, façon ak façon léegi ki xalaat bi buñ ci génnee ay réew dana yëkkatiku ay réew dana wàccaat ndax adduna mooy toll foo xam ne léegi-léeg mu egg fo ci montagne moo xam ne faawu reculer amaat pour adduna mën a doxaat waaye duutu mën a amaat beneen pas kon naka leen war a mën a liggéeyee ki après corona bi Sénégal bokk ci pays yi nga xam ne pays naataange la pays ak euh, pétrole yi mu am ak gaz yi yëpp mu bokk ci réew yi nga xam ne seen développement day day toll ci pays pays yi gën a euh, am euh, développé ci adduna bi man loolu laay. d'accord ci laa koy accord d'accord xam nga da ngay politique. Mm-hmm. yaa ngi def politique. Euh, euh, te kuy politique du bañ a dégg lu ne. Mm-hmm. moom moo tax sax nga xam naa ne bëggoo maanaam mag yi jeexal mm-hmm. tamit sax ñu ngi lay tuumaal ne da nga tabax château. ci Touba gi. maanaam nit ki. Uh-huh. wala xadda karam naa bani aadama wa xamal naa mu fil bahri wal bari wa sax naa min taybat wa fadal naa ala kasim alors que li foofu li ma la fi mën a wax mooy nit boppam yàlla moo ko teral ça n'a Euh, euh, ak politique beeg yeneen yi man sëriñ laa boo xam ne homme affaire la man sëriñ laa boo xam ne nii damay liggéey ci domaine yu bëree bëree bëri damay am ay partenaire partout sëriñ la boo xam ne tey boo demee bëri ri Amadou Assandooy da nga fa fekk sama bureau moo taxaw sëriñ laa boo xam ne fi mu doon it fii ñu toll maa ngi ci tool yi di bay kon nag ki tey euh, li fi yàlla indi ci ay xéewal it fu mu mën a nekk fu ne ca nag mënuñoo am lu ëpp Tuuba kon lu ñu fi mën a am lu nekk moom amaatu danu ko defal Touba pour que ne nag nag diggante bi nii di dundee lu gàtt gàtt nag nga sant ci suñu borom ci xéwal yi mu la defal loolu moom moo tax yu bari ñu di ko liggéey boo ñëwee fii da nga fekk ña ngi koy def du yool it lu lu raw li ni def fii ci kon gëm-gëm boobu ak pas boobu moom euh, nit man naka jekk ci noonu lay dund. macha allah merci beaucoup jërëjëf sëñ bi ci ñu bëgg ñu ko leeralal nga may ñu ko ñu am exclusivité bi euh, xanaa rek di la bax euh, message bi nga xam ne moom ngay tëjee ak ci tabaski bi ak looy dénk taalibe yi mbokk yi ñuy seetaan. waaw ci tabaski yi may wax de eh, nit ñi ñu delluwaat ci jégglu suñu borom eh, delluwaat ci continuer suñu solidarité ci jàppale doomi aadama yi nga xam ne laaj na ko eh, continuer waat suñu mission ci ci nit ñi ndax nit moom yàlla mënoo ko def mu wàcc tàllal nga di ko jox ci doomu aadama rek nga ko mën a def ba mu egg ci sunu borom tabaaraka wa kon nag ci guddi yi ñu toll ci jamono yi ñu toll ak fi réew mi toll lépp lu nit ñi mën a def ci gën a nekk bennoo lépp lu ñu ñi mën a def ci dimbalante man foofu mooy message bi nga xam ne moom laay yónni wax na it président na continuer maanaam ci mission bi nga xam ne moom la ko Sénégal yi dénk te liggéey bi nga xam ne moom lay nekk di def euh, moom ci jëmmi boppam bu laajee sax beneen mandat beneen mandat ah suñu borom def ko moom lépp mi nga aji ci su loxo suñu borom nit la koo xam ne da nga ma ci dugal ci politique bëgguma ci sori waaye nit la koo xam ne ku gëm yàlla la ba mu nekk président sax gëm yàllam moo koo eggal kon bu waree toogaati ak gëm yàllam eh, yaakaar naa ne nit la koo xam ne bokk na ci ñi gën a gëm yàlla ca man lu bari xam naa ko ci moom waaye eh, ko Sénégal bokk ci pays yi gën a développé di ñaanaliti suñ xalifa yi nga xam ne tàmbale ko ci sëñ Muntaxa Xaadimu Rasul ak xalifa yi ne ci réew mi sun borom yàggal leen fi ba mission yi nga xam ne ñoom ñi ngi koy def ngir réew mi sun borom dewal mu eggale ko waaye it di ñaan ñi nga xam ne mooy sénégalais yi yàlla def ci ñoom jàmm waaye def ko ci àdduna bi yëpp jàmm amin jërëjëf mbokk yi ñu seetaan mu nekkoon seen gan spécial tabaski Serigne Modou Mbacké Bara Dolly euh, moom la ñu dalaloon ci seen émission spécial tabaski àndoon ak ci caméra bi Cheikh Bey Bekay Ndiaye ci réalisation bi ci kàddu gi Sidi Diakhaté dig daje ci beneen jotaay ak spécial tabaski jërë ngeen jëf